ami internet euh, Sénégo Kawtef euh, comme ngeen ko gisee euh, boo leen xoolee sax suñu baat bi dafa xaw a suufee ndax métit bi nga xamante ne fekk nañ ko fii si Ndungu Fall ah, fi nga xamante ne tey bañ fi ñëwee waa dëkk bi lu ñu wax si si lim mooy fukk. doom seeni doom ñi nga xamante ñoo si ñàkk seen bakkan juróomi nag ñoom ñoo fi dëkk juróomi si des dëkkuñu fi am ay góor ay jigéen ay mag ak ay ndaw voilà gis ngeen jamono ji si armeer yi dëkk bi lañ nekk mu ngi nii comme ni ngeen gisee sën nii euh, donc ñoom it ñu ngi gas ay sën ngir rek euh, dugal si ñi nga xamante ne ñoom ñoo wàññeeku di ñaan yàlla suñu borom euh, bal leen seeni bàkkaar yërëm leen te xare leen arjana firdaws te suuf oyof seen kaw metti na gis ngeen ni ñuy jàngee alxuraan di tuddee baatu eh, yàlla ngir rekk eh, gunge leen si fi nga xamante ne moom mooy dëkkuwaay bu mujj bu doomu aadama donk doy na waar métti na yombul benn yoon métti na torop torop eh, boo leen ñoom ñëpp ñu ngi fii jamono ji ngir rek accompagner waa dëkk bi si metit bi niñ koy waxante rek bànneex pa nakar ndax ngénte lañ fi ñëwoon ba mujj gi mbir mi soppaliku ab dëj ndax li nga xamante ni moom mooy mbaam bi doon traversé si tali bi mu occasionné li nga xamante ni moom mooy ñaari woto yi nga xamante ne ñoom ñoo agsi donte métti na loolu métti na trop ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom xaare leen aljana fir euh, daw si gis ngeen ko noonu ba or koor yi ñëwee nag euh, léegi nii la agsi vingt-deux heures trente donc fii si Nungul Fall actuellement nii ñuy wax ak yéen nag dëkk bi ñëpp a génn góor jigéen jigéen ñi ñeen ngi doon dégg seen jooy ba fii nii sax si armeer yi nga xamante ne soriwul dara ak fi nga xamante ni moom mooy jàkka ji donc ñoom ñëpp ñu ngi jooyoo ndax nakar ak tiis ndax métti na ku ne méttiwul rek daa fekk na dalu la ñàq benn nit rek dafa dafa dafa métti rawatina nag nga ñàkk si juróom ba si juróom benn ba lim bi toll ci fukk si benn dëkk te dëkk bi ñoom li ñu leeral mooy dëkk bi benn famille la parce que benn euh, am na tur bu ñu waxoon sànq xaw nañu échappé kooku moo leen meññi mooy seen maam ñoom ñëpp donc ñoom ñëpp ay mbokk lañu ñu leen di ñaanal yàlla suñu borom xaare leen àjjana comme ni ko suñu yaay ji waxee comme ni ko imam dëkk bi waxee comme ni ko président association wu dëkk bi waxee donc métti na ñun ñu fi teew sax xam nañ ne métti na lool donc euh, dañuy def lu dul rek bàyyi leen ngeen xool en dimanche ñuñ leen ni robee sëni yenn yi ñoo dend mais du fukk yëpp lañ fiy suul dañ fi suul ñi nga xamante ne ñoo fi dëkk am na ñu ñu war a yóbbu si beneen dëkk am na ñu war a delloo kenn koo xamante dañ ko war a delloo tëngéej suñu imaamu dëkk bi xamal nañu ko am ñoo xamante ne dañ leen di yóbbu fi nga xamante ne ñoom la seeni mbokk bëgg ñu denc leen fa si kàttanu suñu borom metti na lool ñu bàyyi leen en image ngeen xool li nu mel te def si ay ñaan ngir rek seen kër bu mujj boobee ñu mën seen noppalu ci jàmm ak salaam. voilà ami internet euh, kawteef Sénégal comme neen ko gisee lii vrai drame la vrai kawteef la fii suñu réew Sénégal te accident bu métti bu mel nii amoon na fi fan ñu weesu ba état bi jëloon ci ay mesures pareeguñu sax beneen tamit ñëwaat euh, dalwaat fii si suñu réew Sénégal ba tey si Sakal si euh, région de Louga. métti na gis ngeen comme ni ñuy suulee néew leen am na si ñi nga xamante ne ñoom ñoo dend dañ leen a dendale am koo xamante ne ber nañ ko fële am na keneen tamit ku ñu tegaat fee maanaam daal sëni daal bëri na te armée bi taxu ko yaatu noonu ndax dëkk bi rëyul yenn rëy yi mais ndaw yi si bëri loru nañ si ba imam bi sax muñ ko doon wax que ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen doom seen i jarba seen sët ñoom ñoo leen doon dimbali di liggéey di xëy di wàcc donc ñoom tey ñoom ñoo génn àddina dootuñu amati ku leen dimbali si seen kër muy wàllum dépense ak leneen lu ñu mel am na kenn ki nga xamante ne imam bi mu ngi ko doon expliqué que mu ngi doon soog a sanc këram mu doon mbir boo xamante ne fekkeewul Euh, li nga xamante ne rek moom lay yàgg a sonn métti na torop doy na waar donc day mel ni ne rek euh, dëkk bi ñëpp a ñàkk àdduna ñëpp ñàkk waaye dëkk bi it nekk na mbir moo xamante ne bu doy waar la doy na waar trop trop trop jigéen ñeeg ñëpp a ngi jooyoo si dëkk boobule. ñu leen ñaanal rek encore une fois suuf oyof seen kaw yara xare leen àjjana